jàppale leen ci ndox bi ba noppi maa ngi sax ci leneen nag incha allah ndax président Macky Sall bu soobee yàlla dana jàppale ñëpp waaw. Euh, ndox mi investissement la euh, mën nañ xam mën nañ xam ci fan la toll. waaw fi mu toll de taxul mu bari nag ndax matul un million. Hmm. moom matul 1 million taxul mu bari kon. ndax fu mu nu mu mën a toll rek sax man rëyut ci man nañ am ndox rek. Hmm. waaw. mu mel ni yaa ngi def ak yu mel nii ci biir Touba. Mhm. te pas la première fois ngay def yu mel nii. waa dëgg la c'est pas la première fois waaye lépp dañ koy def addiyee Serigne Touba rek. ak jàppale doomu aadama yi. wàllu financement yi aussi mu mel ni tamit Cheikh Kanté dénkoon na la pour nga jàppale jigéen ñi fas ñu ngi ci loolu moom ñu ngi ci bu soobee yàlla ñu ngi defar dossier yi te incha dana ñu tàmbali financement balaa yàgg. ci kàttan la waaw ah, somme bi moom amutub lim. amutub lim ndax jigéen ñi amuñu lim. yaa ngi soññee lu jëm ci maanaam euh, inscription ci carte d'identité ñu ngi ciy soññee bu baax a baax a baax sëñ bi tey ñu ngi ciy taxaw bu baax a baax. Mm-hmm. xam naa de suñu fa gis comme d'habitude ni ma koy waxee. Mm-hmm. waaye waxtu wu ne maa ngi yebal samay ndaw. Mm-hmm. ñu di ci xëy di ci gontu. di soññ nit ñi ñuy génn di bindu ñu ndax fi ne nii loolu rek moo ñu mën a arrangé. askan bi doon nañ euh, ñaxtu sànq wax ay jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko fii bokk na ci ñàkk courant ak poste de loolu lan moo ci nar a nekk sa taxawaay wala boog a yóbbu seen dégg naa ko bu baax a baax. te it laata ñu ma koy wax it yitteel na ma lool. dafa tolloog nag. ndox mi ci laa njëkk a dugg waaye bu soobee yàlla balaa maa bàyyi ci kàttanu yàlla buñ ma jàppale. balaa maa bàyyi courant bi dana ñëw tali bi dana ñëw fii ci kàttanu yàlla te kenn ku ne di nga am loo liggéey incha allah. incha taxawaay boobu nag seegul comme d'habitude waaye bis buñ ca yeggee danañu xam ne soxna Soubry Mbacké jël na décision bu wér fas yéene jàppale Cheikh Kanté mu fas yéene jàppale président Macky Sall soxna si ni nga ñëw si Cheikh mu ñëw si yow di jàppale daf mel na ni euh, am na ñoo xam ne neen lañ ko gisee nee nañu bu duggee see fii dafa war a ànd ak liggéey wala boog ñiy sos parti bi loolu ban kàddu nga ciy indi waaw loolu day kàddu gi ma ci sànni rek mooy la ma ci daan wax naka jekk ndax moom fi mu jaar porte bi mu jaar bunt bu yaatu la war na fee man a aw ndax man damay doomu dëkk bi di sëtub dëkk bi kon bu Seex Kanté ñëwee jaar ci man rek porte bu rëy bu mu waree jaar ci la jaar ñoom nag dañoo yàkkamte rek waaye yaakaar naa dina jëm si ci ñoom soo gisee mu demee yi nii nag wax dëgg yàlla euh, daa ñooña daanañ jàppale président Macky Sall te jamoon na ay jamono amatu fi ndam kon danañ seet beneen bunt bu ñu war a mën a jaar li ma bëggoon nag mooy man daal tàllal naa ñëpp loxo ñoo ñuy kaas ak ñëpp daal nañ àndandoo ñu ñëpp fas yéenee jàppale kenn ki muy président Macky Sall ndax soxna si yow da ngay samp ndënd ci législative yi ñu jëm samp ndënd pour lan pour nekk ah, député loolu moom sama programme man programme suñ boroma comme d'habitude ni ma koy wax man daal maa ngi liggéey sama liggéey lépp loo xam ne nag député mérito na ko man soxna Souli Mbacke mérito naa ko mbaalu ko raw waxal waxal askan wi ci lan ci réew mi. askanu Mbàkke mi nga taxaw askanu Mbàkke wi li ma fi fas yéene mooy li ma la wax léegi rek mhm. man doomu dëkk bi laa di sëtu dëkk bi Sëriñ Tuubaa yi sama maam Cheikh dañ maa chargé mission mbir mi mbiri baatin la dañ maa chargé mission pour ma ñëw jàppale néew du doole yi jàppale taalibe Sëriñ Tuubaa yi man taalibe Sëriñ Tuubaa bi taxaw nekkuma la doy bàjjen sëriñ laa la def te sa ñaan waxtu wu ne dama koy sàkk waxtu wu dama koy wax lii maa moom rek. léegi topp itam di gërëm ñi fi teew ñëpp ak ñi ma fekk si di gërëm nag sëñ bi Thiaw dégg naa léegi li mu yóbbante koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaan itam mu ñaanal ma bu baax ndax fii naa ko gis naa it li soxna Xadi mi wax ma ko waaye it moom mii danoo bokk maa ngi moom muy soxna Xadi Saar maa ngi moom koro ko njóogo saa koro ko njóogo mooy suñu maam moom soxna Xadi Saar ah loolu moom daa def li ko war rek waaye bu soobee yàlla yi dina xam ne kenn jàppale am na jom bu loolu jàllee it maa ngi leen di xamal ne leen fii gis naa li fi nekk njëkkoon naa fee ñëw gis li fi ne dellu si waat naa fi xool naa cib jant sama bët may na ma xool naa fi cib lëndëm sama may na ma. waaye dafa am nag bu ngeen ko mën a dooleelee yéen. mooy ngeen dem bindu ji ci carte électeur yi. dem leen ngeen dem bindu ji bu watee jotee ngeen génn watee fas yéene jàppale président Macky Sall ba élection yi ñu jëm mu am ci ndam ndax moom moo monsieur Cheikh Kanté digal moom mi ma dugal ci parti bi. am ndam Touba te it nee na loo xam ne Touba soxla nañ ko fas la ko yéenee def moom président Macky Sall changement bu mag am na fi te di ngeen xam ne am na fi incha allah. monsieur le ngi lay doolee ñaan nag sëñ nu mu tuddati sax engagement kon lii ko fekkee lëndëm bii maa ngi di doolee ñaan nag ngeen dooleel ma ci ñu ànd jàppoo ba indil leen fi courant dolli ndox mi it ba mu gën a bari. ba séenee dolli ndox mi it ba a dugal fi courant bi te it góorgóorlu ba indi fi tali bi ndax li sëñ bee wax dégg naa ko fii du sancaan fii dëkk bu yàgg la bari na ay kilifa yu ne Touba yoo xam ne fii la ñu soog a caareel. ko yéene mooy lu ma mën dinaa ko ci jàpp bu soobee yàlla ndax mission laay dox boo xam ni sëñ Tuubaa ma koy dox loo kon damay ñaan na ngeen ñaanal ma ba mission boobu dara bañ ma cee fakastal jërë ngeen jëf maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm nag sama yaay Asou Diop bi ak soxna Mariam Ndiaye ñii di gërëm ñëpp nag soxna Thiam ñoom ak mboolem délégation bi ma àndal ñëw maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm it nag ñi ma fi fekk si.